mooy euh, jamono bi nii euh, dafa mel ni xam nga dañuy wax ne quand l'alcool rentre les paroles sortent donc dégg nga loolu. dégg naa ko bu baax. luy loolu ndongo. waxal ci hmm. kaw. ku mànd ku ne di nga wax. ku ku da ngay wax da ngay wax. waaw ndax rek nit. lan moy màndil nit ndongo. kon leer gu ëpp leer gu leer gu ëpp day dëgg la. <laughs> foofu nag. ndax mu jóg waaw bu tàng dina dina dina waxloo nit. waaw bopp tàng dina wax loo bu tàng dina waxloo nit dëgg la. tox day màndiloo. tox tamit day wax loo nit day màndiloo. Mhm. Mhm. xol bu naqari. xol bu naqari. day wax loo nit. waaw ñàkk a roy bi day wax loo nit. Top jamono day waxloo nit te loolu seetlu nañ ko ci Facebook bi seetlu nañ ko ci Facebook euh bu ñëk sax YouTube la gënoon bari mais légui Facebook bi dafa graw parce que euh, YouTube bi day yóbbu connexion xam nga ñun ñun lu yomb rek la wër YouTube day yobu connexion so défé ab 500 do xolé benn vidéo ñaar rek mu jeex légui nak contrairement à Facebook 100 francs do ko amé da nga am connexion. am sa direct bu baax mais mbokk yi ñaaw min gi nekk ci facebook bi, ëpp na ëpp na xam nga li tax ma laaj leen lan mooy tax nit di wax ñu ne mandi mandi ci leer wala mandi ci yamba wala mandi ci sangara wala mandi wala xol bu tàng mais nit ñi léegi man dama damay laaj lan moo leen di waxloo lu leen mandiloo ba ñuy wax parce que ñiy wax mandiwuñu tërëfuñu dara jot leen te dañuy wax ne man maay diw may doomu diw doomu diw diw man maay nàngam pour wan leen ils sont lucides dara jot leen kon léegi am na lu leen mandiloo xaw ma dañoo rep xaw ma donc euh, mbokk yi euh, nañu defaat ndànk euh, saaga ndey ëpp na wax yu bon yi ëpp na jëf yu bon yi ëpp na enregistré enregistré yi ëpp na page whatsapp yi ëpp na haut-parleur yi ëpp na sëñ bi gaay yi nan def ndànk mbokk yi nan def ndànk waa Sénégal nan def ndànk li ñu bëgg a def dina dina indi ay problème yoo xamante ni kenn du xam fan la jëm te am na ci ñoo xamante ni moom dugg nañ ba noppi ndax am na loo xamante ni ku ko wax cim réew doo yendu doo fanaan te xam nga am na loo xamante ni baaxul sëñ bi Euh, gor dafa am loo war a daw mooy taxaw naan euh, euh, maa ngi jégguloo maa ngi tuuba maa baal leen maag sa wala doo ko deful tamit say sa ndey ji la jur di sa kilifa toog di la jéggulu di la tuubal sa baay di kilifa di la jéggulu di la tuubal sa sëriñ di kilifa di la jéggulu di la tuubal loolu rafetul ci wax joo xamante ni baaxul yonent bi waxoon na ko nee na nit dina wax benn wax mu sànni ko soixante-dix mille en muy dox te du laal fa mu jëm ci biir safar ci biir jahannama benn kàddu mu ne nit dina dem ba war a dem safara ba ñu war ko yóbbu benn kàddu lay wax rek ñu jël ko bind turam ci aljanna mais wax dafa garaaw sëñ bi wax ba lu fetal la su génnee kenn mënu koo téye te euh, yéen ñi def loolu xanaa doo leen xalaat du ci kanamee seen doom yi xanaa doo leen xalaat doo leen demee ba nekk mag xanaa doo leen xalaat ëllëg ci kanamu yàlla ngeen war a waxaat lépp mais am na ñoo xamante ne fi ni saaga ndey te te léegi bu njëkk wolof ñun ay wolof lañu dañuy am façon bu ñuy waxee di nga wax li ngay wax yëpp ci yar ak teggin ñi ngay waxal ñëpp xam li ngay wax mais taxaw di daggi saaga ndey sëñ bi di wax wax yu kenn mënta dégg di di di di di oh ëpp na soo ko ëpp na ëpp na ëpp na ëpp na te léegi nëbbatootuñu am na ñoo xamante ni léegi def nañ sax émission yoo xamante ni dañuy toog di saaga ndey rek saaga ndey du début jusqu'à la fin ci koo xamante ni yow kooku ngay waxal doo dajeeg moom ñaari loxo nga koy jox. pourquoi parce que tu as 100 francs dans ton téléphone nga tok def sa direct di wax lu la neex sëñ bi lolu musiba la Yalla nañu Yalla dimbali Yalla nañu Yalla jappalé. ñoo ngi ñoo ngi euh, dénk mbokk yëpp euh, euh, bàyyi leen xel lolu. bu bu ko bu kenn partagé vidéo yoy, bu ko kenn aimé. bu ci kenn dox baaxul Ma ngi leen di xamal né na ñëpp def attention gis nga mbokk yi ko leen di wo diko def au parleur na ngeen ko ko wax Ma ngi leen koy dénk ndo ndoo nga dégg wax ci koy woo di ko def haut-parleur nangu ne ko sëñ bi ku baax ci wala mbokk mi dama lay def haut-parleur parce que tey jii am na lu mu bëgg a wax a yow lu personnel loo xamante ni su xamoon ni da ko def haut-parleur du ko wax kon loolu piège la baaxul bu ko def bu ko kenn def am na ñu bëri tey jii seen àdduna yàqu na ci Facebook ak ci YouTube ak euh, ci ci ci ci réseaux sociaux yi WhatsApp haut-parleur moo leen rey bi ci des tamit. page whatsapp bi ku ci wax na nga xam li ngay wax parce que ñoñu ñi euh, euh, policier yi di wër ci Sénégal fi mu ne nii li leen duggal page whatsapp la wax lañu wax ci seen page ñu japp ne seeni mbokk rek ka fa nek seeni nit rek ka fa nek ñoo bokk li ñuy wax am nekata am ko leen rax genn publier ko ci Facebook bi YouTube bi fi ne ni seen aduna yakuna ñepp ñëpp ngi leen di wër ñepp a ngi leen di so ñu yegoon fi ne duñ ko def ndax dinañ sonal seen bokk sonal seeni mbokk sonal seeni sëriñ te loolu dara jaru kon euh, wattu leen loolu li ci des nit ñi nañu gën a ragal yàlla sëñ bi nit wóorul di wax ak yow téléphone nga koy enregistré wóorul billaahi enregistré nga ko de te yëgu ko waaye yow it malaayka yi enregistré nan la de it malaayka yi enregistré la su ëllëgee ci kanamu yàlla lépp dina leer wa xusila ma fi sudur donc dañ def attention loolu bëggoon naa vraiment ñu ñu séddoo ko Euh, parce que ñoo ngi pervertir suñu jeunesse bi ñoo ngi leen di déggloo ay wax yu kenn mënta dégg te sëy yu bëri tas na jigéen ñu bëri seen àdduna yàqu na groupe whatsapp yi toj nañ àdduna bi groupe whatsapp yoo xamante ni xoolal lan la ñuy def dañuy xëy di saagante nday ba ngoon groupe whatsapp boo xamante ni da xëy di nettali la nga séq ak sa jëkkër la nga séq ak sa far la nga séq ak góor la nga séq jigéen kese groupe whatsapp yoo xamante ni dañuy toog di jëw di wax lu bon kese mooy seen àdduna te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na benn xadis foofu laay tëjee xadis bu daw yaram la yonent nee na yowmal qiyaam yowmal qiyaam déglul bu baax ñaar yi ma la wax nii yonent nee na yowmal qiyaam kenn indiwul foofu ca yàlla lu gën jikko ju rafet jikko ju rafet te jikko ju rafet moo ngi tàmbalee nga téye sa làmmiñ wala sa làmmiñ duy jóg tamit nga ci wax lu baax yonent bi nee na man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yaqul xayran aw li yasmut waxal lu baax baa nga noppi beneen xadis bu daw yaram bi yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na yowmal kenn indiwul lu fa yées kenn indiwul lu gën a bon gën a ñàkk teggin gën a torox yàlla gën ko jéppi moo ki malaaykaam ak nit ñu baax ñi ci jigéen juy nettali lam séq ca këram ak góor guy nettali lam séq ak jabaram donc xanaa lii gars yi dañoo yëgul wax yonent bi non non mais dañuy fo groupe WhatsApp boo xamante léegi ku nekk doo xëy tër dem marché la nga sëg sa jëkkër ngay nettali góor ñu ñàkk bopp ñu tamit lañ sëq ak seeni soxna ñu koy nettali léegi ci biir groupe bi bi day tas wala sa téléphone ñu sàcc ko wala sa téléphone wadd wala sa téléphone réer téléphone boobu dal ci loxo ab saay-saay mu publier ko ci Facebook mais xam nga ni ñooñu duñu xamoon ni seen vidéo seen ojo yooyu ci YouTube bi lay mujj duñ ko def mukk yàqu nañu te fi ne seen seen àdduna léegi lu ñu mujj naan dañuy dem digg dañuy porter plainte porter nga plainte ñu waa ji amande nañ ko dix mille euh, dix millions loolu teewul yow sa der yàqu na te der bu yàqu dix millions du ko defar préjudice moral bokkut ak préjudice pécuniaire affaire xaalis ak moral bokkul kon nañu nañu ñu raxas làmmiñ ci laa ilaha illallah gis nga euh, damay wax mbokk yi toujours ne leen nit ki fekk xamul ne xel mi yàlla defu ko ci boppam lu dul muy xalaat lu baax làmmiñam bi yàlla bind ko lu dul ngir muy tudd laa ilaha illallah làmmiñ bi soo gisee ni mu mel rek nii nga xam ni kii pour wax laa ilaaha illallaah kese la xoolal làmmiñ yàlla bind ko lu dul pour muy wax laa ilaaha illallaah leneen loo ci def yaa ngi gis nga yàlla dafa bëgg ñu koy jullil moo tax mu wutal ñu ay om articulation lii soo gisee mu pili yiw yàlla def genou muy genou genou ci boppam yàlla daf ko def pour ñu koy rukowaal moo tax mu def ci lii mais du pour leneen attention nañu téye làmmiñ nañ ko raxas di bàyyi xel yàlla di di di di am na wax yoo xam ne sax suñ leen ko waxoon dina leen gën a jaxase waaye daal nañ def ndànk ñu teey di wax lu baax di def lu baax ah di yéene lu baax yàlla nañu dimbali yàlla nañu yàlla jàpp yàlla nañu yàlla suturaal barke yonent bi sallallahu alayhi wa kon mbokk ah, yëf yaa ngoog incha allah tey Euh, soxna Aminata Faye moo woon euh, macha allah yaakaar naa jàng ngeen ci moom ci jikkoom yu tedd yi nga xamante ni yéen jigéen ñi war ngeen cee mën a jël exemple euh, góor ñi war nañ cee mën a jël exemple war nañoo xamaat ne alaaj Mouhamed papaam baax na waaye tamit ndeyam ku baax la ay waajuram ñu baax lañu ay maamam ñu baax lañu yal na yàlla yokk seen leer yal yàlla yokk seen leer yal na yàlla yokk seen leer kon incha allah ñoo ngi yëgalaat mbokk yëpp xew-xew yi war a am ci ñaanu maam alaaji bi di leen soññaat ci ñaan yi ak dog yi ak yéene yëpp di gërëmaat ñi nga xamante ni fu ñu toll tamit ñoo ngi jàpp ci liggéey bi euh, fii ci France ak ci Sénégal tabaarakallaahu ku mel ni Pam Ndongo fan yii yëpp mooy bàyyi ay yitteem yëpp ak coonoom yëpp ah avec ses bagages ñëw fii ànd ak ñun ci liggéey bi macha allah di remplacer euh, sëñ Racine li mi dem euh, tukki di remplacer sëñ Mouhamad liggéey liggéeyam dafa gën a yokku loolu moo ko jàpp sëñ Ibrahima Diop ca Bordeaux tabaarakallaahu sëñ Babacar turi xaw a sori tuuti moom it mu ngi en ligne Babacar. ma ngoog ñoom ñëpp tabarakallah ñooy ñooy bokk liggéey bi sëñ Thierno Mbacc yàlla na ko yàlla fay mooy coordonné liggéey bi yëpp macha allah yàlla na yàlla fayal ñu leen ñoo suñu soxna yu yi ñu àndal bokk liggéey bi fii bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw Mbengue dom waaw kooku kooku doom la ci bàjjen màggin njëgin Ndeye Ndiaye waaw soxna Ndeye Ndiaye ko doom doom la ci bàjjen doom la ci moom moom léppam la xaritam la ku ko sopp la xam naa ko bu baax ca mbuur jigéen bi yiw la Moustapha Diouf waaw Moustapha Diouf mhm. waaw Moustapha Diouf waaw ragal naa ni waaw waaw ñoom waaw waaw suñuy wëllër la ñum ñëpp suñuy suñuy xarit la ñu yàlla seedal ñii ñëpp ay soppe la ñu waaw gars yu baax a baax waaw waaw sëñ Njóogu sëñ Njóogu macha allah commentaires yi waaw commentaires yi macha allah baax na parce que ay résumé la yàlla yàlla fay leen seen yitte yëpp ak seen seen baax yi Euh, sëñ Maxtaar tabaarakallaahu taxawaay yal na yàlla fay leen barke alxuraan ak ñi duggoon ñëpp te mënuñu leen a tudd ndax xataay bi waaw sëñ Babacar Ndiaye moom it yàlla na ko yàlla fay ñoom ñëpp ñoo ñoo ngoon ci biir Mbay Fall Ndiaye yàlla yàlla fay leen euh, xataay bee tax mais incha allah dinañ am bis spécial pour delloo ñëpp njukkal ñoo ngi ci ay liggéey yu am solo nag pour fan yi allah yàlla na yàlla motil lépp yàlla jëkkal ñu baal ñu suturaal ñu àdduna ak àllaaxira jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daana an الحمد لله الحمد لله